suñu lieutenant Ahmed Dieng bu nekk eaux et forêt bu Ndiarème Diourbel tey dañoo ñëw ak bu takku ñëw def fi reboisement ci lycée scientifique d'excellence donc euh, ma fàttaloo depuis 2017 ñu ngi ñëw fii di accompagner lycée bi ci wàllu garab ren nag dañ koy jagale pour ñaari bis te ñëw nañu indaale ay li ñuy wax silaw ak garab desena silaw dañ ko jëmbat defar ay gis ba desena bi dañ ko ci wëral parce que lycée bi daa fas yéene def fii par périmètre maraîcher ci weer yi di ñëw pour ñu a def foofu seen maraîchage donc bis bi tey loolu lañuy loolu la ñuy def léegi suba dañuy indaale ay fruitier xamante ne ay anacarde la ak citron ak mango ak li ñuy wax ombragé pour jëmbat fii damay profiter occasion bi euh, remercier proviseur bi ndax vraiment mon ak équipe am ay jàmbaar lañu parce que depuis 2017 ñu commencé fii di def reboisement mais à chaque fois suñu ñëwee def suivi bi dañuy fekk vraiment donc loolu c'est à saluer voilà wasalaam bon Ousmane Sagna may njiit lycée scientifique d'excellence de Diourbel euh, tey dañ fi daje parce que waa Eaux et ñoo ñoon di ñu dimbale reboisement bi mooy ñeenteeli at waa Eaux et Forêts chaque année ñu góorgóorlu ñëw dimbalil ñu pour ñu reboiser lycée bi lycée bi mu ngi am ñett ñeenti at euh, comme lycée bu bees la donc dafa soxla ay garab te garab yooyu nag booba léegi ñu ngi góorgóorlu chaque année ñu xool luñ ci luñ ciy def moo tax euh, ku dugg si ci lycée bi xam ne ñu ngi garab yi gi jóg ndànk ndànk ndànk am nañu en dehors des eaux et forêts yeneen partenaire yi ñuy jàppale aussi ci reboisement bi mais comme xam nañ ne garab dafa am solo ci nit looloo tax chaque année ñuy góorgóorlu ci sawar ci parce que xam ne élèves ci ne loolu dafay am solo ci lool nit fuy jàng environnement bi da ciy am solo environnement boobu nag moom la ñuy jéem a góorgóorlu pour mu mu niroo comme nu mu war a mel loo xam ne ko fi dugg si sax xol sedd waaw looloo waral daal sakkan ñu góorgóorlu di xool liñ ci mën ci reboisement bi looloo fi ñu tax dajale tey ak waa Eaux et Forêts ñu ñëw di ñu jàppale am ñu garab ñuy reboiser vraiment ñu ngi remercier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ci jàpp partenaires yi ñoo ci jàpp les les amis du du du lycée d'excellence le club des amis du lycée Sera, représenté par mon ami ici Jojo. Vraiment, j'en profite l'occasion pour lui remercier sincèrement parce que lui muy def ci ñun bari na depuis bu ñuy créer ce club ba tey tànkam du jóg ci école bi mu ngi jàpp mu xew mu ngi lu gis lu baax ci lycée bi mu andi donc c'est l'occasion aussi de lui remercier sincèrement vraiment merci beaucoup